daje nañu tey ji euh, comité de suivi des opérations euh, de la mise en œuvre des opérations force Covid-19 fii ci euh, région de Thiès ñu tàmbale nag ci bunt bi muy bi ñu gisee gouverneur ba pare ci suba ci ngoon si ñu ñëw ci préfet mu woowal ñu chef de service yi nga xam ne dañu bokk ci comité euh, de, de, euh, de gestion de l'épidémie euh, ñu waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom moo ñu yëkkati réerewu leen mbir ne dafa am euh, budget bu mille milliards bu président de la république euh, pour ñu mun a riposter ci feebar bi nga xam ne moo tàbbi ci biir àdduna bi muy euh, Covid ci biir loolu dafa nome comité bi pour que ñu topp li nga xam ne moom mooy xaalis boobu ci fi mu jaar ci douze euh, quatorze régions yi nga xam ne ci Sénégal bi yëpp la. ñun nag ñoo ñëw fii Thiès ginnaaw bu yeneen délégation yi équipe yi ku nekk demee ci beneen région ñu nekk saint yi ñii ngi Fatick ñii ngi ci yeneen région bi ñu ñëwee nag gis ngeen ndaje bi nu mu demee chef de service yi wax nañu li ñu jot wax nañu également naka lañ ko utiliser représentant euh, corps de métier yi lu jëm ci commerçant yi tailleur yi transporteur yi conducteur euh, moto Jakarta photographe donc képp koo xam ne yaa ngi amoon ci looy yëngu te mbas bi ak mesure yi ñu jëloon am lu mu la yàqal ci sa liggéey nu mu doon doxe déglu nañu euh, joxe nañu également ay leeral ci li ñu xam li nga xam ne des na ci aussi dinañu jël li ñu wax pour yóbbul ko njiitu réew mi ci rapport pour mu xam yan modification lay apporter mais aussi xam liggéey bi ñu def ban impact la am ci population donc loolu moo doon euh, waxtaanu tey bi mu nekk nag loo xam ne dañuy saluer réactivité administration parce que diggante bi ñu ñëwee ci suba ne leen lii la ñu bëgg ak nii ñu defee réunion yi woo chef de service yi woo ñi nga xam ne ñoo ko seq yëpp ñu ñëw wuyu nekkul loo xam ne lu évident la léegi nag gis nañu waxtaan bi commerçant yi wax nañu seeni problème waa Jakarta wax nañu waa euh, tailleur yi chef de service yi aussi waxta waxtaan nañu yëf yi nag mu ngi dox wax nañu aussi yan jafe-jafe la ñu am yëf yi nag xam nga comme dafa am ceeb ak diwlin ak suukar njaayeen yi seeni tawat aussi wax nañ ko ndax am na loo xam ne dañu ko euh, yéex a jot mais fi problème yi jóge ak saafara yiñ ci war a def yëpp tamit wax nañ ko ñi nga xam ne mun nañ wax ne dañ leen a fàtte woon ci ñu tuddee ko ñi ñu omission ndax nekkuñu ci liste yi te ñu nekk ñoo xam ne dañ ci waroon a feeñ wax nañ ko ñu ngi wax ne dinañu leen recenser pour yóbbu ko pour que rectification yi ci war a nekk ñu def ko ci pour que ñoom ñu jot seen kit li am nag mooy euh, gis nañu ne wàllu ndimbal bi un million de ménages lañu ko jagleeloon ñi ñu fàtte woon tax na ñu yokk ko ba un million cent yokk nañ ci cent mille ménages recensement yooyu buñ ko defee je crois que dina muna a combler bi nga xam ne ñi nga xam dañ leen a euh, fàtte woon dinañ leen fa mun dugal te loolu dina wàññi euh, coow bi am di wax rek ne euh, Sénégal nag suñu ne un million de ménages un million de ménages lu mu ndaw ndaw war naa laaj laal dix millions nit donc euh, buñ ko booleeg li nga xam ne tamit mairie yi joxe nañ ko war nañ seet ne effort yu yu rëy def nañ ko waaw am na nag lu ñu war a joyanti mais li ñu war a joyanti bu taxee ñu fàtte effort yi nga xam ne def nañ ko day mel ni euh, tamit euh, nit ñi delloowuñu euh, c'est pas nuñ ko mun a waxee waru gar bi mm-hmm. waaw delloo njukkal xaalisu réew mi la nit ñi ñoo ko moom mais quand jël nañ ko jox nañ ko lépp nag matul loolu mooy constat constat bi am na tam ay problème yoo xam ne nit ñi war nañu tamit mooy ñun wax ne lii mooy problème bi parce que tey ñu ngi ne ci Thiès ñu ngi joxe mais li jëm ci pat alimentaire bi muy macaroni yi ak vermicelle yooyu matul mais est-ce que dañoo war a xaar ba mu mët ñu doog a commencer joxe dina poser problème gis nga mu ngi xiin taw baa ngi commencer fa ñu teg ceeb bi fa ñu ko euh, denc suba xamoon ndax dina senn lii mu ngi ci ay zone yoo xam ne ba gis nañ ne ah de manière timide ñu ngi. commencé di joxe mais loolu je crois que war nañ ci yéegal wax ji ñu ne kat macaroni bi usine bi koy defar pareegul te lii mu ngi fi te mu ngi nawet nar a nit ñi jël leen lii je crois que loolu tey war nañu am fitu ak responsabilité jàkkaarloo ñi ne leen lii mooy situation parce que usine li muy produire bu fekkente ne damay joxe misaal rek euh, dix mille dix tonnes la mun a def par jour nga soxla ay milliers de tonnes ah xamoo ndaa usine ba mu ngi mu ngi mu ngi dox ci feebar la ñu nekk est-ce que matière première bi disponible na ci usine ba ak lépp nii ñu taxaw nara a xaar loolu te waxuñu nit ñi li likki je crois que dinañu poser problème bu mag ba la ñu doon saafara par jur jàngoro donc il est temps par rapport à cette question que nous allons prendre en charge remonter les choses pour que ñu jël décision jël li fi ne joxe ko parce que ndimbal moom je crois que nekk di ci xaar mu amul fi li fi ne daal na dem nit ñi utiliser ko mu jeex beneen bi mooy euh, wàllu peut-être facture yi parce que affaire yi nit ñi yooyu la nit ñi gën a gën a kii tey dinañu yóbbu tamit beneen euh, doléance bu ñu jël fi mooy Senelec ak Sen'Eau dañu commencé couper ñi nga xam ne fayuñu seen facture te nag situation bi ñu jóge tax na nit ñi ñu bëgg a ñaan société yooyu ñu accorder ay moratoire ay facilité de paiement aux populations parce que ménage yooyu nekkuñu ay yu pauvre dañ daan fay seen facture normalement mais feebar bi li mu fi jaar ci mars avril mais ba fii ñu toll nii tax na ñu bëri nekk ci ay difficultés yoo xam ne suñ leen defaloon ay facilité de paiement dina entre en droite ligne ak objectif bi nga xam ne moom la ñu pour oyofal nit ñi tuuti ñu mun a dund loolu tam tey mun nañ wax ne ci biir Thiès jàngat nañ loolu te ay problème la yoo xam ne dinañ ko remonter incha allah pour que euh, autorités yi ci kaw mun ci jël ay saafara.